foofu bëggoon naa cee sàcc de. waaw damaa dëkk ak moom yar ko. yaayam teel a génn àdduna. waaye mu secours ay magam secours ay rakkam. su tabaski jotee bu la rombee da ngay xam ni borom jom romb na. mu nekk xale boo xam ni jëf ci moo ëpp wax ji. xale bu maanu xale bu xam boppam. am na ñoo xam ne bëgguma ko di wax parce que xawma fu may mujjee dañ ay nit ñu wérul lañ ay malade mental wéruñu mais maalaw day ànd ak ñoom sax ci vol di tukki. dem na ba delloo si xale yooyu ba nga xam ni ku leen jàppe woon tey jii nit ku wérul wér nañu dugal na am na benn xale bi ci bëgg ki ci bëgg musique dugal na ko studio mu def son kaneen ki fexe na ba ànd ak moom ci vol parce que affaire dem la bëgg kon xale la boo xam ni bu toogee fii bu ñu xamee ci moom loolu war nañ ko mën a wax parfait waaw Malaw Pikine bëgg naa nga présenté wu déjà Malaw Pikine ça vient d'où la mooy c'est vrai tout yonent bi lañ ma tuddee. moom sama vrai tur mun naa ko joxe ndax yàlla rek laa yaakaar maa ngi tudd Mouhamadou bu Gadiaga mais suy lawbe moo tax te law dañ leen di dakkantal maalaw ma dëkk Pikine maalaw pikin loolu mooy ni sama tur mais sama tur dëggantaan Mouhamadou Souhaïbou Gadiaga la pour ñi ko xamante ni bëggoon nañ ko mun nañ ko jëlaale. <laughs> léegi nan nga mën a présenté wu sa bopp. Euh, parce que nee nañ ma sànq fii tu es influenceur en même temps humoriste euh, le fait comment il ne naka la ñëwee ci yow ba tey nga nekk un influenceur boo xam ne tey bu ñuy wax ci génération bu bees bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci réseaux sociaux yi dañ la ciy boole comment est venu d'être déjà un humoriste la moo la attiré ci loolu ba tey nga am li nga am tey waaw euh, di jërëxul dafa am foo xamante ni dañ fa jógee parce que dañoo nekkoon Sénégal doon taaba taaba diggante deux mille quinze deux mille ñu jóge fi dem Maroc toog fa nekkoon fa di immigré quoi comme jaay dugg ci marché yi ci ville touristique yi di jaay en deux mille dix-huit euh, Boy Niang di bëre ak euh, Sa Thiès moom dafa buggatuma ma ma ma sori ko quoi boobu man kenn xamu ko xamoon nañ ma ci aspe làmb affaire yooyu noonu quoi mais diggante bi may nekk Maroc xamuñ kenn xamuñ woon ci ay réseau boo ma gisee tere ci combat Boy Niang nga ma gis en 2018 bi ma ñëwee ci combat Boy ak Sa Thiès mu daan Sa Thiès ma sama biir tour waroon na nekk ma waroon fi def trois mois mais bi trois mois yi jeexee ma ne man est-ce que du ma toog quoi sunu waa kër sama papa Sénégal mun nga toog fii de Sénégal amoon naa objectif ci gaal yi affaire mais j'avais une modification boo xamante ne ak sama papa ne ma yow sa àdduna doo mës a dugg ci gaal bul mës a dugg te jour bi mu waree dugg ci gaal jour boobu la waxtaan téléphone mu wax ma loolu ne ma bul a dugg ci gaal yow boo seeti ni ko def ma gën a am courage nag daal di toog bi ma waree jibi Maroc dama bëggoon dem pour dugg ci gaal yi pour jaaroon dem Espagne mais bi ma toogee Sénégal nag en 2000 après combat boo ñaa bi ci laa tijji ay plateforme xaw ma woon sax ay Instagram ak ay Snap ma tijji sama benn plateforme bu ñu naan Snapchat nekk ci di commencer di def moro bu ñu ma waxee influenceur sax dama naan non man est-ce que influenceur la man je suis un créateur de contenu maanaam sama affaire yi ngay yi may def à travers sama snap moom ma maanaam mën naa ne moom moo ma yóbbu ba aspect humoristique boobu ngay wax daal di ñëw parce que ci la ma waa Mourou di gisee ci contenu yi may def à travers sama snap ma ci nuyu pot moo a gis daal di may dugal ci bitiku jogee ci benn. pot waaw ku baax waaw moo ma gis ci bi xam ne kii il est intéressant mu dugal ma ci bitiku jogee ci benn saison. ñu xaw a wane suñu bopp noonu ci dix épisodes après Adja yi ñëw ñu amaat ay yeneen contrat affaire yi commencé nag léegi nag ma gën a professionnaliser sama bopp maanaam Sénat bi ma ciy def ay contenu xam nga dafa diffé dama différent ak ñi nga xamante ni tey ñoom njëkk am ñoom njëkk am Sénat biir Sénégal parce que gars yi dañu doon snap rek bu ñu gisee DJ Raxu eh DJ Raxu yaa fi ne kenn du yow affaire yooyu xam nga. Mm-hmm. mais man dama ñëw créer ay touches yoo xamante ni comme si série la comme film la man ñi may suivre xam nañ loolu. dama créé loo xamante ni film la ay histoire yoo xam sama biir Sénégal laa ko créé moo tax ma différent ak ñoom moo tax. réseau yi bu bees quoi. bu bees tàq ci snap bi. snapeur yi sax ñoom dañ may seetaan parce que saa moo xoolee samay samay ñi nga xamante ne ajouté naa gis dañuy ils sont tellement actifs ci samay xam nga ñoom sax xam nañu je suis tellement différent d'eux. et fa la affaire yi jógee ba tey ngeen invité ma nii. yow na la ba Makka. waaw yóbbu na ma fu ne j'ai fait tous les grands rendez-vous moom laay mbaragee sàng Sofia <laughs> fekk ñoo doon ànd ñoo doon ànd ñoo doon ànd waaw man ak moom waaw <laughs> ah, maanaam nit ku neex du ma ne influenceur nit ku neex bi njëkk a dem congrès mondial des médias fii ci Sénégal te loolu sama téléphone bi moo ko may Sofia da nga am loo ko waaw parce que tey ki fi dal peut-être buñ ñu nee télé dañ naan présentateur ne animateur ne journaliste. mais ñoom peut-être am nañ position bu ñu taxawee boo xam ni mën nañ leen wax des présentateurs comme ni mu ko waxee un créateur de contenu euh, tey Malaw comme fi mu tàmbalee ba fi mu egsi nii li ko ko may moom mooy euh, création ndax euh, dafay feeñ sax ci tele yi buñ demee bay euh, def ay concept yu uute ñin euh, ñi dañ lay seetaan parce que mm. dafay am importance boo xam ni ci biir contenu bi la koy créer foofu mais euh, li ma ci gën a neex c'est un boo xam ne tey dafa contribuer ci développement ñenn nit ñi à Pikine ndax tey maalaw bu jëlee téléphone am gis koo xam ne ñu baal ma ci kàddu gi su tontewul tuuti boo ko gisee xam ni am na lu manqué ci moom mm-hmm. tey da koy jël sang ko ba mu set teg ci wetam solal ko t-shirt solol ko tubay mu correct boolewaat ko ci société bi mm-hmm. te tey am na ay ONG yoo xam ne wala ay ay entreprise yoo xam ne loolu seen wàll la mm-hmm. mais moom xaaru ci ku ko ci jàppale ndax tey mm-hmm. bu fekkee dafa jël ay nit yu bari yu mel noonu recadre leen def leen ñu set de telle sorte que boo leen gisee doo leen xeeb donc c'est c'est quelque chose à saluer ndax euh, gis nañ ci ñu bari ñu ci defar li Aziz wax sànk rek jël na ci ñooñu kenn koo xam ne dugal na ko vol génn te loolu yombul te mm-hmm. nit ñi bu ñu amee occasion seen frère la ñu xëcc mm-hmm. wala seen sœur yóbbu mm-hmm. waaye bëgg bëggal ñooñu nga xam ne tey ji xëy na amoon nañ lu ñu manqué euh, mayaat na leen confiance de telle sorte que mën nañu réinsérer waat ci société ma am lenn lu ma koy laaj parce que euh, demoon na fi benn congrès mondial euh, des médias fële ca Dubaï ñu ciy nuyu Euh, Joe Biden moom moo nekkoon euh, sunu njaatige foofu ñu ngi koy nuy du ko ziar bu baax mi ngi toog di seetaan. mais ah ban Joe Biden. non bu bu bu Sénégal <laughs> moom lañ koy woowee alors moom Malaw euh, tey yooyu dañ daan gis raxu ñu di ci yóbbu ay journaliste yu mag yoo xam ni c'est des diplômés. te yàgg nañu dem ci genre forum yu mel noonu parce que des fois da nga fay dem euh, def benn émission wala spécial bu ñu ko jàllalee jàllale nañ ko mais dafa def débat ci loolu moom le fait malo Malaw Pikine un créateur de contenu euh, entre guillemets influenceuse influenceur dem fële ci Dubaï euh, dafa susciter beaucoup de débats ndax euh, xëy na dañ ne moom sa personne waru woon mérité nekk foofu ñu wax loolu ñenn ñi parce que dafa suscité beaucoup de débats ci mhm. loolu euh, moom personne bi lu tax muy dem ci forum boobu di fa couvrir et pourtant moom loolu mu dem couvrir noonu tax na sénégalais xam forum bi tax na sénégalais xam important su forum bi. parce que c'est pas pour rien waaw parce que léegi ñoom fu ñu toll la ci mm-hmm. digital. mi mm-hmm. image baa ngi ci ginnaaw fu ñu mm-hmm. toll la. de telle sorte que xëy na léegi télé d'accord télé moom du bokk ak dara. waaye ñoom euh, moyen bi nga xam ne moom la ñuy def ci communication ñoom ñoo ko mën tey li muy def moo ko yóbbu créer congrès mondial. yombul d'autant plus que euh, euh, euh, ba mu ñëwee sénégalais yu bëri ak journalistes yu bëri yoo xam ni xëy na laal na leen man pour man ku fa war a dem dam fay dem surtout que il a travaillé pour mériter place bu mu fa dem donc xëy na liggéey bi moo ko fa yóbbu mais des na tuuti damay ragal ñoom ñi sax ñooñu gën a en fait gën a am place ci yenn zone yi nga xam ne ñun dañ ci soxla journalistes yeeg yooyu léegi beneen bi stop mooy loolu contribution bu ma doon indi la rek mu amoon beneen forum boo xam ne waroon na fa demaat à baay bu tudd Tomorrowland lan moo tax demul parce que loolu aussi euh, moom waroon nañ ko yóbbu ci ay waaw loolu passé na passé na d'accord passé na alors juillet la woon juillet la woon Tomorrowland mooy mooy festival bi gën a mag ci monde bi monde bi waaw festival boobu amul festival bu ko gën a mag ci monde bi musique wala wala musique yooyu lépp d'accord maanaam mooy rock yi da ngay gis euh, tous les maanaam ñi nga xamante ni ñoo téye monde bi ci wàllu événementiel ñëpp nga fa gis. ok Belgique lay am d'ailleurs day am ay Bel day Belgique mooy festival bi nga xamante moo gën a mag. ñooñu man la première fois sax ñu invité. africain africain. Mm-hmm. ok léegi man lañ envoyé woon invitation. contact boobu noo ko noo ko amee ak ñoom. waaw mooy comme li kii di wax rek dafa am mm-hmm. naan sax bu ma nee tëyal bunti. Mm-hmm. tëyal tëyal kii naa mun naa a naan. d'accord waaw ah, kooku mooy liggéey ñooñu. Ah, par rapport ak euh, congrès bi bi ma demee ci congrès bi ak coow li mu indi te loolu téléphone rek moo ko def. Mhm. d'ailleurs ren congrès bi amaat na. Mhm, mhm. na waroon naa dem mais <laughs> dama amoon empêchement. am na journaliste yoo xam dem nañ. mais sénégalais yëguñu moo ko def. Mm, mm, mm, te loolu boo demee ci mel noonu euh, xam nga journaliste moom bu demee ay reportage ay interview xam nga am lu muy jokkoo ak ñoom yow en mm-hmm. tant que influenceur yu mel noonu soo leen demee la ngeen di def da ngeen di filmer rek yam foofu wala da ngeen di la une semaine avant may dem gars yi xam nañ damay voyager maanaam sénégalais yi may suivre sama snap kumpa boobu moo leen moo leen di moo leen di mm-hmm. Mm-hmm. maanaam loolu mooy continue bi nga xamante ni tey mooy tax nit ñi boo demee foofu ñu lay suivre ñoom d'accord bu ma nekkee aéroport du ma xam du ma wax fan laa jëm samay valise ak sama passeport laay fii ne leen direction duñ loolu kumpa boobu di leen topp

visa visa Belgique. d'accord naa man musuma voyager au niveau. ah sur le plan d'accord ay Europe yooyu. d'accord te tamit xam nga am na yoo xamante ni boo ko amee mu jàmp foog nga am benn ballon ballon rond bi. te man yàlla def na amoon ballon rond. d'accord <laughs> d'accord très bien. Ah, waaw ay ballon looy la. ay ballon le problème c'était un rendez-vous. un rendez-vous pour mettre mes papiers xam nga pour ñu mën ma tamponner. parce que euh, invitation boobu mooy amul invitation bu ko gën a. rëy fiable d'accord. waaw loolu fu ma ko tegoon dañ may jox mais xam ah, naa dafa nekkoon loo xamante ni gënul ci man te man dama nekk dama nekk ni samay samay bagage lu war a ñëw ci man day ñëw ci man mm, mm, mm. Euh, euh, ci présentation da ngay dégg boo ne parce que la majeure partie ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi mu nekk dañuy def différence ci créateur de contenu contenu et influenceur parfois am na ñu bëggul influenceur bi am na ñoo xam ne itam créateur de contenu moo leen gënal déjà yow première question ba moo la ci gën a influence non man man li may def hmm. maanaam je suis tellement influent nag parce que même pas dix minutes su ma dugalee samay su ma dugalee snap photo di jee raxu hmm. du dem du def dix minutes di nga di nga gis presque ay trois mille wala quatre mille personnes hmm. sama une heure de temps sama snap day def vingt mille personnes loolu influence la waaw am na ñu lay topp mais man je préfère pas moi un créateur de contenu que man ñi ma ko sekkal ñëpp maa dama dama maanaam su fekkee aspect danse dama a fecc man je suis un moo tax soo ma nee influenceur da nga may yamale lu ma influenceur man mm-hmm. artiste laa bañ na ko carte artiste dama ko yore. Mm. carte dama yor carte mi sama sama téléphone. sama pour xale yi ñuy seetaan nii euh, te ñu bëri léegi yor seen téléphone na ñoom c'est des influenceurs. Mm-hmm. waaw yow tey nan nga mën a définir un influenceur. man de Sénégal est-ce que Sénégal influenceur fii. Mm. ah am na influenceur boo xamante ni moom bëgguma tudd turam. Ah. <laughs> mais lu mu def gars ah jaru ko parce que mun nga laal beneen affaire. lu mu def gars yi def ko waaw. waale. waale influenceur la. Mhm. waaw ay sëñ Muntaxa yi sax ay influenceur. Mhm. Mhm, c'est vrai xarit <laughs> général des Tidiane influenceur. dëgg la. <laughs> ñooñu ñooy influenceur. dëgg la am na koo xamante nii tey bu xale bi bu defoon.

ma romb teer bi mu romb affaire bi neex ma ne ay waay lii boo yeewoon Senghor wala ngay nga yee Lumumba ne leen Sénégal am na teer buy daw ne bienvenue dans la gare de Bountou Pikine mais loolu dafa wër ba ñëpp di ko estatiwaat maanaam mhm. loolu influencé naa nit ñi que ñu ñu jàpp ci ñu ñu kii loolu très bien c'est important ah, euh, Mbodja lan nga bëgg laaj sa doom ji man na côté bi moom kii yu ma ci moom mën nga ci laaj dara parce ah. que waaw dëgg yàlla doon na koo xam daa xëy na Sofia sax moom ma wax lu bari ci moom bi jamono bi mu ñëwee ngapparu laa ko gisee parce que man lu tax li ma jaaxal nag lool moom jaaxal na lu tax moom mu nekk ci TikTok bi man ma nekk ci TikTok bi mun ma fexe ba man man dama man mun ma dajeeg ma ah. mun ma gis. abonante ngeen xaw xaw man ba tey jii ma tey jii man maa xeere la man mënu ma ne lii lay def wax dëgg yàlla. bilaay walaay mënu ma ne lii lay def. waaw parce que la plupart ñi ngay daje TikTok direct te man. rarement laay man du musuma direct ci TikTok. Mm-hmm. Oh, loolu la maanaam xamante ne dañuy direct di xëy di waa xam nga mm-hmm. bokk moo tax yow doom duñ mën a maanaam duñ mën a gisante lu bëri bëri bëri. man samay bagaas dama ko xeereel ba mu xeeree. man moom mooy loolu man pour nga touché ma nii ñoo xamante ne dañoo dañoo am jot nag chaque jour dañuy direct ci ci TikTok bi parce que TikTok léegi dafa dem nekkatul sax léegi pour. wane ay produit léegi léegi dafa dem ba léegi ay. kaasante moom Sénégal ay ay yooyu TikTok la wala sinap bi TikTok la walla lan la. loolu après Sophia dina la dina la expliquer. <laughs> yaa miinagul miinagul. yow TikTok la gën a miin sinap. yow TikTok nga a parce que man bi dajee man ak moom euh, fee nga paru yaa ma koy wax yaa naa ma kii sinap bi lay def. Mhm. mais man sinap teel man ka man xawma la gën a miin wax dëgg yàlla dara nag TikTok laa gën a miin. mooy sa profil sax moo gën a kii la waaw laa gën a miin moo tax moo wax dëgg yàlla mhm. du ma mën a sori ci laaj bi parce que. dëgg la je comprends. Euh, Aziz. waaw man li ma koy laaj rek mooy damay gis ni à chaque fois continuer su koy def suy commencé tiktokam ci biir koñom saa yu xëyee fa lay ibbee maanaam continue boobu lan moo tax mu rêvé su xëyee rek wane bopp koñom wala lan la bu xëyee ba maanaam maanaam comme par exemple saa yu xëyee rek ci buntu koñom lay ibbee lan moo waral lool waaw loolu mooy xam nga nit ki da ngay am originalité. Mm-hmm. maanaam bu ñu xoolee di jeeraxu rek xam ni yow tu es un maanaam promoteur bu mag a mag a mag. Mm-hmm. tey bu Sénégal bu ñu demee ba yenn artistes yu mag yi ñëw fi maanaam mën nañ ñi di jeeraxu am na ci part de responsabilité. Mm-hmm. loolu originalité la man tamit dama bëgg a wane benn originalité boo xam ne dafa nekk ci man muy côté naturel. maanaam tey boo demee ba nekk milliardaire yow li nga doon dund bi nga yorulee boo tijjee samay plateforme ci sama snap maanaam ngay sentir loolu. man su ma ñàkkee xamoo su ma yorulee xamoo. su ma mënee solu xamoo ay dégg su ma feebaree xamoo maanaam fi ma nit ñi toppee mu sama biir koñ hmm. koñ bi nga xamante ni tey dem na ba viral hmm. àdduna bi ñëpp xam nañ ko muy hmm. pare Icotaf amul télé bu fa ñëwul documentaire lu ne xew na fa ah ouais pare Icotaf mooy fi koñu teer bi mooy moom fi mu dëkk koñ boobu mën naa ni c'est la mën naa ni moo gën a siiw léegi Sénégal te nit ñi fa lañ ma xamee léegi buñ ma gisee buñ xëyee suba gis ma tëj sama snap commencé di loolu dañuy dem xooli ki ma gën a original ñu ànd ak moom. naturalité originalité maanaam la vie quotidienne des Pikinois. Mhm. maanaam li nga xamante ne ñun Pikine loolu la ñu dund. Mhm. loolu laay filmer di ci créer samay contenu. Mhm. da doon tox danga doon lii danga nga bëgg a sangu booy des fois ñu dajaloo maanaam jënd ñu bal ma ànd ak ñoom. maanaam continue jënd bal ànd ak ñoom terrain di créer ay combats sama biir koñ di créer ay conflits maanaam ay création yoo xamante ni des ma def loo xamante ni sax lu may créer la. mais am na ci yu bëri yoo xamante ni maanaam suñu vue naturelle la maanaam suñu koñ da ngay xëy di gis contenu chaque jour. Mhm. même boo ko trouvé wul. dañoo neex. très bien dégg sànq dégg naa ngay wax. Euh, sa moom mii rek si la bokk parce que ko sinap. mu mu ñëw woo ay géeram ñu wax ñoom ñaar ma ne ko da nga sant mu ne ma waa gis nga te loolu lu naturel la. dëgg la sans bu koy def ak man. Ah. maanaam suñu vue naturel la ñuy la ñuy filmé. fi ne kenn du jox ma. waaw waaw c'est ça loolu doo def macha allah léegi dama lay laaj benn wax parce que sànq naa ngay wax sa waxu papa euh, je pense que say parents lu lu lu important la ci yow waajur yi tey jii euh, ban lan ngay rëccu ci sa diggante ak say waajur loo xam ne ne tey boo sañoon ñu gis ko ci yow wala nga def ko ci ñoom. waaw man moom ci côté boobu amul lu ma ciy rëccu xanaa kenn leen kay laay laay laay méttiwul mooy le fait que sa sama yaay xamul ni doom li ñu koy invité télé quoi. Mm-hmm. te yaa xamul loolu. waaw waaw mm-hmm. xam nga ni moom jur na. non <laughs> jur na koo xamante ni des fois ñu ngi koy invité télé mi ngi voyagé te xaalisam du ci dugg. xam ni voilà. <laughs> tey boo xoolee photo bi may gis ni sama <laughs> sama sama kanam. waa gis soo amoon loo koy wax lan lay doon tey. waaw ne bu ko parce que xaw ma ko sax xam yooyu photo bii sama benn grand moo ko yoroon di ma ci sànni as quoi. naa ko envoyé xaalis bi mu envoyé ma photo bi. ma envoyé ko cinq mille xaw ma vingt mille pour mu envoyé photo parce maa ngi soo gis photo bi mën naa ne barki dem sax lañ ma ko envoyé. ah waay. xaw ma sax na laal ba envoyé ko xam na loolu mais ko ñaanal yàlla xaaree ko àjjana sama papa moom mii fi moom ma ko ñaanal yàlla fekkee sama njariñ bu baax a baax a baax a baax père may gajaga moom man ak moom mun naa ne comme ni may waxtaanee big taf la ñuy waxtaanee man moom amul maanaam boo ñu fekkee ñu waxtaan doo xam ay lien wu ay paana ak ay affaire yooyu ay xar lañ. te loolu rek boo ñu nga gis sa foto yaay nga am ci période yoo tool yoo xam ne gis nga nit yi am satisfaction ci yow mm. nga gis nga mu leer na ni satisfaction fi waroon jiitu mooy sa yaay dend ak yow nga ne ko yaaykat maa ngi dem fi ñaanal ma yaaykat lii jëlee naa ko fi am jox naa mu toog mu manqué la lan lay def si sa xol ak lan lay def sa xel exactement mm. ah, ah waaw loolu moom loolu waaw mais mooy mooy li ma la wax léegi léegi rek Aziz li ëpp na débat dama débat dama koy wax naan ndeysaan damay toog si ak naan oh wala may wala wala may mbalaga sama maam xam nga sama maam moo moo jur sama yaay moom mun naa ne sànq bi may ñëw sama maam mais dafa neexul tamit quoi xam nga ma la nga am ay mën a faj ay soxla dix mille mën a jënd ay or maanaam mën a satisfaire sa yaay quoi te moom fekke ko mais loolu yëpp maanaam dañuy delluwaat lépp suñu loxo ci loxo yàlla. absolument parce que fii kenn ñëw fi pour toog. am na koo xamante ne nii day bi muy. bi muy judd la yaayam gaañu kooku moom gën a métti la man sama yaay bi muy gaañu cinq ans la am macha allah yàlla xam na ni man moom des fois loolu rek moo may métti mais du question ay jooy ak ay man moom mooy loolu man man dama xeere vraiment mm. damay damay am mbégte encore ci yow ndaxte euh, le courage bi nga am ak euh, gëm-gëm bi nekk ci yow loolu la ñuy wax la fois je vois que ni mu ngi ci yow te c'est très important waa Aziz yow yaay xam nañ ne ni mu mel ci doom euh, wax nañu wax yaayam gis nañ ne am na lu génn ci yow euh, lan moo indi loolu lan moo lan moo def sa sa sa lan moo la touché ba sa larme yi génn. raaxu ma ñëw ci moom tuuti xam nga dañuy sant yàlla sax moom bi mu dëgëree ba mën a wax ci yaayam parce que dafa am euh, barki démb damay live benn waay laa doon live fal parce que moom dafa juddu ba am. 37 euh, ans ba tey photo bi moom mu am ci yaayam kooku amu ko sax ci yaayam nee gisul photo gisul fu ñu denc yaayam xamul nu yaayam mel kon moom tamit dëgër na parce que toog na wax dëggantaan parce que hmm. tey jii xamul yaayam bi mu amee 5 ans kooku mënul nettal si yaayam dara mais ku dem tey bay jënd sa photo yaay ci ay 20000. Hmm. ay mille loolu yitteel na la. Hmm. raxu yaay moo gën a nekk ci li nga xam ne tant que ñàkkoo ko mënoo ko xam boo juddoo nag gis ko. di am amour bi di nekk ak moom doo xam valeur yaay dëggantaan mais su la wonee ginnaaw sa genn wàll mooy dem mais nag sant yàlla moom bi mu nekkee xale teel a xam ne ñàkk na yaayam mais mi ngi bu góor mi ngi ak na ñu ko amul tane na leen mais tamit yàlla yokk na ko jom ji nga xam ne tey bu yaayam dekkatoo dekkiwaatoon sekkaat ko fii du ko mer kon yàlla na yàlla dafal cat gën lay jàppale bu baax waaw mooy comme ñi nga xamante ne tey ñu ngi seen yaay ñu gën cee profité ñu ñu gis seen yaay nañ ci góorgóoru baax maa la ko wax de gën cee profité maanaam gën a gën a dab seen i bànneex ah, ah. man moom sama papa moom man lu ma yor sama papa moom parce que man awma jabar awma dara mhm. moom laa ko nee naa man moom sama papa lu ma moo ko moom mhm. joxuma kenn sama papa rek laay jox mhm. est-ce que moro ñi nga xamante ne samay morom lañ am sama âge maanaam tey seen yaay neef yi ak seen papa yi nañ ciy gën a profité di xool leen neex maanaam di xool ñoom di leen di yaree maanaam booy di gën a respecté seen parents yi parce que loolu dafa am solo xam nga éducation dafa am solo tey foo dem moom loolu ngay prôné moom nga yóbbaale waaw moom ngay yóbbaale ah, mm-hmm. Mm-hmm. moo tax booy sama morom bi daf ciy baax ñoom tamit xam nga mm-hmm. ñu gën a xam seen seen valeur u waajur surtout ñun fi ñu toll nii jamono jii nii instant bi am na ci booy yu bëri yoo xamante ni déglootuñ dara ñoom am dañuy teel teel di mbëkk di dem mais la moo ko waral ah, loolu yëpp maanaam jamono la quoi amuñu suñu papa ay temps amuñu woon temps sax toog maanaam di guddee tëdd wala ay vingt man des fois damay toog ba ay deux heures du matin toog samay xarit man wóor na ma ne sama daanu tëdd deux heures daanu tëdd une mais nag da mais am na ci ñun suñu morom yoo xamante ni. ci côté boobu man bokk laay wax. man côté boobu côté yar teggin ak jox nit cër respecté nit maanaam dafa nekk loo xam ne dafa nekk ci man. war a booy dafa war a da ciy baax ñoom tamit ñu gën a respecté seen parents yi surtout ñu ngi fi. maanaam gën a profité wu ci ñoom. comme li parce que parce que loolu dafa am solo quoi. c'est important parce que. waaw sànq aussi maa ngi dégg nga naan euh, naroon nga dem euh, Maroc jaar ci. ci gaal gi dem bitim réew sa waxu waajur moo tax demoo te tey ñu gis na ne c'est c'est vraiment en vogue aujourd'hui on voit beaucoup de jeune ñuy jël gaal ñii di def lu nekk pour bëgg dem wala ñi nga xam ne sax ñu ngi fii seen gis-gis mooy dem bitim réew yow en tant que jeune en même temps en tant un influenceur lan ngay am wala ban message nga bëgg jox jeunesse bi nga xam ne aujourd'hui yow yaa ngi ci réew mi yaa ngi góorgóorlu ba talaloo bi fii ban message nga mën a jox jeune sénégalaise bi yow en tant que jeune. waaw te man distance distance bi ma waroon doxee moo bi ma waroon duggee gaal moo gën a jege. Maroc Tanger ngay dem. Mhm. teg teg gaal. Mhm. man ñi ma waroon àndal sax dugg na mhm. ñoom. ñoom ñoom ñu ngi Espagne yàgg na. foofu trois heures temps la. yow ngay déparé def ay quinze jours wala dix jours. <laughs> te boobu sama papa dañu ma bul dem. te xam naa lii mu ci yéegee dama yéeg mais maanaam dégg waxu. dégg waaw dégg sama. ndigal waajur bu boo ba woon léegi na ma coupé émission bi nga dem sa yoon dama koy def mais par rapport ak ñi nga ne ñooy sama morom yi xam ne ñu ngi jóge Sénégal di dem dugg ci gaal yi xam nga tamit dafa am ñaari chose yoo xamante ni da cee nekk tey am na situation familiale yoo xamante ni tey mooy poussé yenn gars yi ñuy dugg ci gaal am na ñu bari gaal gënul leen mais man duma ma digal kenn mu dugg ci gaal de ma part personnel boo yoroon cinq cent mille mu manqué fukki dërëm pour nga ci gaal bi du ma fukki dërëm mais ku am volonté moom yéeg ci gaal man du ma ko téye pour mu bañ a dem ci gaal parce que xaw ma ban situation familiale la nekk. Hmm. man tey sa maam bu soxlaa 1000 francs sa papa bu soxlaa 20 000 mën naa ko lu jënd jox am na ci koo xamante ne day toog xool yaayam yaayam xool ko. mënuñu hmm. gis naa koo xamante ni bac waaye kooku dafa jàng ba yéey ay kayitam dugg na ci gaal yi te kooku moom li mu jàng bu fekkoon am na ko ci biir réew. Hmm. maanaam kooku du dem du dem du dem du jëri gaal. am ñaari part des choses yoo xamante ni tey mënoo taxaw fii mënoo taxaw fii. waaw mhm. mhm. ah, yow tey jii soo amoon je ne pas le président Macky Sall toog fii nga jàkkaarloo ak moom ngay jeune dëkk ci réewam màggee fii soo amoon question boo koy laaj pour la jeunesse ñu ne tey malo Pikine moo yor benn kaddu pour jeune sénégalais yépp ban kaddu nga koy wax pour la jeunesse nga yaakaar ne lii boo ko waxee mën na faj. jàngoro bi nga xam ne moom la xale di dund tey benn mooy tey ku ci nekk ci fi nga qualifié ki jàng ba pare jàngam ki def formation ba pare formation ki nga xamante ni ni tay peintre la ki nga xamante ni tey maçon la mason la ñu jàng maanaam jàng loolu téye seen domaine ba téew maanaam bu ñu génnee takk bu ñu tegee six mois nañu am liggéey waaw man j'ai fait les bancs jàng naa ba troisième groupe scolaire seen Nour Tall may nuyu sama ancien directeur Babacar Babacar Diop ma koy nuyu di ko jox wàcc waayam kooku mën naa ni moom tamit Aziz fa ne à bi am nga beneen métier bu bokkut ak créateur de contenu ci à jàng jaay laa doon def ay fëgg jaay laa doon jënd di ko ay bal di ko yóbbu sama biir koñ di ko jaay des fois bu xew damay jënd bal ànd ak sama benn maire ndeysaan may mun a baaji kooku moom a ñu ko jox ay bal sax ma ko dama ko doon ràngu ci moom ma koy nuyu sama yaay la doon ko jaay ba mu jigi daal di ut paas ñu jóob ma Maroc ma dem Maroc man jaay laa mu sa xam à part loolu sama papa entrepreneur bâtiment la mun naa ne waa kër seen bu bépp liggéey bu ñuy def ci muy jumaa muy lépp sama papa koy def daal la ma yóbbu ci ay sànc di ma surveiller loo <laughs> ah di ma jox xaalis sànc waaw ñun moom xaalis bâtiment la ñu ngéntee sama mag tamit bi jur sama bi sama mag bi topp bi sama taaw yaay ñu nga xaw Sëñ Abdou Lahad moom mi ngi Touba entrepreneur bâtiment la nii moom yàlla nga koy dimbali nga am ay chantier maanaam xaalisu béton ak suuf la ñu ñun mhm. mais daan dem ci chantier yi mais loolu nekku ni man ci loolu laa waroon te la la la ma nit ñi waroon xamee moo tax nga xeere kon loolu tax ma xeere loolu a gis mais loolu ma doon wax noonu mooy Sénégal bu ñu demee tey maanaam bu ñu demee ba dem en phase de développement mooy xale bu ci liggéey bu ci pare li ngay def sa domaine bi nga xamante nga nekk ci ñu ñëpp ñu am liggéey booy bu ñu amoon liggéey maanaam bu ñu amoon liggéey bu xeere fii Sénégal alhamdulilah duñu dem très bien euh, man j'ai j'ai une question bu ma ko bëgg poser par rapport ak ñi nga xam ne te xam naa tamit président de la république maanaam président mënoo ko nekk ba pare am benn xol bu soxor ci sa sa sa sa ci sa peuple mun naa ne yow président maanaam président mu mënoo résoudre tous les problèmes maanaam monde bi yëpp ku ci ne da ngay ñëw bay sa waar man je suis pas un politicien Abdoulaye Wade Senghor ñëw na fii am na lu mu fi def Abdou Diouf ñëw ab Abdoulaye di ñëw mais Macky Sall tamit ñëw maanaam am na ci réew mi loo xamante ni bind na ko fi loo xamante ni ku soxorul mu nga ni lii président bi fi jógee bind na lii mhm. très bien alors dama am benn question sur sur sur sax parce que moom Euh, ci ay contenu woon da ngay gis euh, tout le temps ay xale yu muy àndal ñi nga xam ni comme li ma wax sànk rek dañu xaw a nekk tuuti euh, ay déficience mentaux te moom comme c'est un influenceur nu ma ko mën a waxee peut-être dinañ liggéey ci loolu di profito comme li ñu wax rek état nekk na fi mais am na ñoo xam ni daf leen fi nekkal pour liggéeyu ndaw ñi ak formation donc di lancer waale message Sow Events dafa nekk en partenariat ak euh, ON ONFP ONFP waaw. ONFP ONFP waaw. Mhm. te dañuy joxe ay formation ak ay euh, bourse ak accompagnement. Euh, ci yenn xale yi xam naa après incha allah dinañ ci ñëw ñëwaat. nga joxe numéro yoo xam ne aussi ñu xool jeunesse bi. parce que comme dañu dañu nekk ay jeunes nekk ci dëkk bi. lu ñu mën rek. état moom munul def lépp mhm. autorités yi mënuñu def lépp mais ñun ñi nga xam ne ay acteur de développement lañ mhm. mën nañ am benn chaîne de solidarité boo xam ne dañuy jàppale ñenn ñi mhm. xam naa lool dinaa ci ñëwaat te bëgg naa ci liggéey ak Malaw parce que xale jox nañ ko bopp d'autant plus que am na benn jeunesse boo xam ne ñu ngi koy suivre bu ko defee ñu utal leen benn euh, xëy wala ay formation ci loolu incha allah euh, ci loolu est-ce que bon li ma la doon laaj sax tontu naa sama bopp parce que dama doon laaj ne la ndax am nga ñu lay jàppale ci loolu mais dañuy ànd fële fi ma wax nii wala 3FPT bu ko defee ñu gën a ànd liggéey ci côté boobu incha allah est-ce que tu es prêt. waaw incha allah mais ci côté boobu man musuma am koo xamante ni dafa may jàppale. Mhm. naa am damay am samay contrat yoo xamante ne nii dama koy signé lañ may fay ci contrat yi continue yi ngay gis sama snap yëpp ci laa koy defee. mais mhm. amul kenn koo xamante ne nii mun nañ ne day kii kat moo yox moo jël xaalis ci ko jox maanaam musul am. am na ci yu bëri ñoo xam dañ naan comme ci combat Ama Baldé ku watu ma jox la 5000 ku watu ndel ma jox la 5000 xam naa dañuy poser la question que kii kii lay jëlee xaalis bi xaalis boobu sama xaalis parce que dama am ay partenaires yoo xamante ne damay liggéey ñoom. bu fekkoon ak publicité mën naa tudd seen tur. mais tu coûtes parce que man man yow àdduna laa mhm. ah, euh, euh, mhm. parce que dama dégg mu wax ni combat wu Ama Baldé. ku deful ndel ma jox la cinq mille et pourtant il y a certaines gens qui disent que Pikine déggoowuñu peut-être moom dinay dégg loolu Pikine cent pour cent Pikine wala deux cent bi amul te moom ñëpp xamee kook Boy Niang bu ñu demee ba moom mi nga xam ne bokk na ci ñu sës Boy Niang mu dem di soutenir Ama Baldé ku watuma jox la cinq mille te Pikine période bi ñu ne ànduñu moom naka la gisee situation boobu et lan ngay wax ci loolu noonu li gars yi di wax moo nekk wala lu nekkul. waaw ñoom de maanaam ñi wax loolu ñoom ñoom la concerné. Mm-hmm. moo tax loolu laa lay wax rek man bokkuma ci ñi nga xamante ni nii tey dañuy wàccee drapeau Pikine man lii ma def nii tey lii ak li ko ak euh, maanaam témoignage yi am fii rek du man ngeen ko defal mm-hmm. mais maanaam ñi dëkk Pikine ngeen ko defal mm-hmm. parce que bu fekkoon damay naan sàngara wala may def loo xamante ni tey maanaam waa Pikine laay laay salteel mm-hmm, tey man du ma bokk ci ñi nga xamante ni tey ñooy indi ay polémique biir Pikine parce que je suis pas maanaam xale laa mais kilifa laa biir Pikine ba pare nekk sama slogan la bugguma nekk ay mu tuddati ay figurant man acteur laa te acteur du dee ci film. Mm-hmm. Ama Baldé ba bu ñu nee ginnaaw suba la combat ma moom ñu ngi déggante vocal bu la neexee ngeen taal micro ma tegal leen vocal yi. Mm-hmm. ma xam digganteem ak Boy xam na ñuy seek ñoom ñaar. du déglu ñoo xamante ni tey waaw mais dama naan dama naan Paris dañ daan ñëw bëgguma wax quoi mais dañ naan daan gis Paris ñoom ñëpp non dama naan moo tax léegi man du ma nekk acteur nekk ci biir acteurs yi waaw di déglu ay figurants yoo xamante ni nii seen papa ak seen yaay kenn jo judoo ci Pikine mm. Mm. ñii ay Zimbabwe lañ jógee ñii ay mm-hmm. Côte d'Ivoire lañ jógee ñii mm-hmm. ay Mali lañ jógee mm-hmm. ñëw téye biir Pikine di wax mm. léegi man ma dëkk biir Pikine sama papa judoo biir Pikine sama yaay judoo biir Pikine man nee biir Pikine tojee biir Pikine di déglu ñoo xamante ni nii mooy loolu. te xam te xam les les les les les causes tey man bu ma fëggee. biir kër la réalité de de tey man bu ma fëggee biir kër ama seen jabaram daf may tijjil xujja. ama seen daf may tijjil. bi mu waree bëri combat royal dama ni ko su ma ñëwee stade nga daan nga daan nga daan nga daan bombardier. te noonu la demee te dem hmm. naa ah, stade dama dem puus jàkkaarloo moom mu daan. waaw te ñun ay Pikinois lañ duñ xool li nga xamante ni mooy saldel Pikine mais en matière de lamb rek lamb dafa nekk sport boo xamante ni c'est quelque chose de fiir dafa fiir mhm. ah. naam ñun ñëpp Pikine lañ dëkk mhm. mais ku ci nekk sa Pikine da nga am sa gétt boo xamante ni ah. boo waree am lamb waaw ñooñ ñoo lay ñoo lay assister te loolu tamit mooy àdduna waaw mooy àdduna souvent sax moo koy neexal yow sa émission bi am na ñoo xam ne ñoo lay assister bi may ñëw sàng la ma benn gaan woo di ma wax les causes qu'on va parler mais xam ne Didier Roxum yi mooy mooy def émission bi ah, donc maa ngi maa ngi jéegulu man defe naa on a une surprise qui va arriver là on a une grosse surprise mm-hmm. Mm-hmm. ah. waaw ah. ah, ah, ñu après ñu dalal quoi. Mm. ñu oh. xam naa ne man maa ngi doog a toog ci plateau kii mais dama am lu ma xalaat. moom masa tabaski dafa masa jot ma toog suma benn rakku yaay doomam ñu ñuy waaj tabaski. Mm-hmm. mane ne yaay mun ma ewaay eh moom yaayam dafa gaañu am nga yaay. loolu loolu la sama xel dem ak moom ni ma koy gis mais man du ma toog sax ci maa ko gën a dëgër maa ko gën a dëgër ah. mais day am yoo xam ni nit nga émotion waaw maa ngi maa ngi maa ngi jégalu bu baax di wax ni dafa laal abcès boo xam ni man dama ci bokk dama ci bokk mooy muy pikin ci ñi njëkk a jug di def moralu ñu xam ni pikin comme li mu wax dafa dafa dafa am angle yoo xam ni ku ne ak mbër bi ngay àndal. muy sa nit mais pikin benn la. mais làmb moo fiir làmb su demee ba am gàllaaj dafa fiir Ama balde am na ñu muy àndal Boy ñaa am na ñu muy àndal Eumeu seen am nañ sox am na ñu muy àndal mais du tee li ñu war a séq ci jàmm ñu séq ko mais làmb dafa dem dafa dafa doon loo xam ni fi mu nii bu ñu la gis ak Boy Niang bu làmb amee ñu gis la ci Ama trop lu ko dal ñu ne moom la. Mm-hmm. extra loolu loolu moo am moo tax affaire yi déggoo li ma la wax géejawaay moo ëpp problème pikin mm. mais pikin mooy xolu Sénégal moo gën a siiw ci Sénégal Pikine boo boo bëggee xam dara pikin boo xëyee bul jënd soleil mm. dañ koy waxtaanee seen biir yaa ngi dégg moo tax mais Pikine problème amu fa pikin de maanaam ñi ñiy wàlli yaas ñoo ñu bëgg a jaxase mm. ñiy wàlli yaam si ñoo bëgg a dugg ci ay retour yoo xam ne seen yoon newu ci man li may ñaan mooy la surprise la ëmmat seen toog <laughs> booy ñaa toog <laughs> waaw ñu takkal micro bi. sañ sanga sañ sanga. yaa ngi dégg. macha allah. xam naa lépp ngi dégg. foofu bamba ko micro. yaa ngi dégg raxu. léegi nag li fa nekk dafa yaatu. léegi nag ñu pour ñu dimbali ñu. nañ def benn point de presse pour man. Eumeu Sène toog Boy Niang toog Sokh toog du question dara mais ñu waxtaan ak waa Pikine wan leen na leen maanaam ñi ci biti ñi ci biti te yaakaar ne coow dafa am ñu wan leen ñoo bokk nday ñoo bokk baay soo gis nga ni soo bis mel noonu la làmb mel bu demee ba làmb ji taxaw ku ne da ngay may tonte wax nañ waxante dëgg. dëgg la foofu la toll mais di am mbégte. Euh, di di jël kaddu tommanteeg surtout maam Cheikh Rafal bi dugg si. Mm. muy mm. Omaro Gueye euh, ñu bokk yaay. Mm. parce que parce que nit ku baax la. koo xam ne bi ma dugg see ci kër gi daf maa yokk waaye wàññiwu ma. Mm-hmm. kooku jëy naa yaayam yow boo dugg see. Mm-hmm. di ambassadeur léegi mën mënatu mënatunoo wax ñaari yoon dañ naan ambassadeur. Mm-hmm. di fois. dañu lay ñaanal jàmm. amiin ndax surtout Cheikh Ibrahima Fall. dalal ko Baba ah. Daoud